Eh, jërëjëf monsieur le gouverneur ñu ngi lay sant bu baax yaak eh, chef préfet Tivaouane ak le sous-préfet Niakhène ak eh, membre CRD bi yépp ñu leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi am na solo lool maanaam xereñ te feeñ na ci yéene ju rafet it am na ci te bañ jógee ba tey loolu la ñuy gis ci seen yitte ak seen taxawaay di leen sant di leen gërëm ci turu njaboot gi comité d'organisation bi yépp leen xamal ne lii am na solo mais lu rëy la ci ñun waaye nag ay ñaan lañ ciy tofal yoo xam ne dafay jëm ci réew mi ak njiitu réew mi nga xam ne moo di président Macky Sall yàlla may ko jàmm te may jàmm réew mi ak premier ministre ak euh, mboolem membre gouvernement bi yëpp ci yan bi nga xam ne yanoon nañu ko Sénégalais yi yàlla nañu ci yàlla jàppale mu woyof di gërëm premier ministre di gërëm ki nga xam ne mooy le ministre de l'intérieur yow mi leen fi toogal nag ñu di ko jaarale ci sa kàddu ngir nga jot leen ñu ko di ñaan ci réew mi nag jàmm ak dal ak waxtaan sottante xalaat ndax wuute mën na am waaye tàqalikoo mën na ñàkk nit nag bu amee lu ne ci dënnam da koy wax waaye du ko yëngal ci yaramam pour jëfandikoo ko defee nag moom la yonent bi wax laysa shadidu bi sura innama shadidu man yamliku nafsahu inda al qadab ne njàmbaar du ku mer rek dóor njàmbaar mooy ku mer da ngay ànd ak sa xel maîtriser sa bopp ba doo def looy rëcc bu sa mer jiifee yal na yàlla def sénégalais yi loolu di seen jikko yal yàlla yi def sénégalais yi seen xalaat ñu di ko rafetal tey wax lu baax ndax yàlla dafa wax ci alquran wa naa linnaasi xusnan di leen wax lu rafet bari na loo dégg ci àdduna bi wax lu ñaaw ko indi te jàmm ku ko am doo ko foyee dañ ne ki xam jàmm dëgg-dëgg mooy ki ko amoon ba ñàkk ko ba leneen ñëwee nag ci lay xam ne man li ma amoon su ma yëgoon dinaa ko téye kon Sénégalais yi ñu ngi leen di ñaan réew mi yàlla na ci yàlla def jàmm te yàlla nañu amul dal te ñi fi jiite yàlla na yàlla defal leen jàmm ñi ne ci réew mi itam di yëngu ci lu mu mën a doon yàlla yàlla xiir leen ci jàmm te nuy dox jàmm ñun ñëpp ñu ànd doon doon ay sénégalais bokk ndey bokk bàyyi lépp ñuy concerté wu di waxtaan ndax mushawara moo am solo diisoo di waxtaan ba déggoo ci dara e, dafa am genn kilifa gu ma wax ne benn bés bu ñu wootee ne nañ waxtaan na ñëpp dem bu ñu xasee wax ba tënk la ñuy tënk d'accorduma ci duutu tax loolu dañ kon te loolu ku bokk ci barab rek dañ lay woo nga bokk ci ku bokk ci barab rek buñ la wooyee jàppal ni da nga caa bokk moo tax ñu woo la su ko defee boo wujjee loo jàpp ne mooy jëriñ réew mi wax ko loo jàpp ne mooy rafetal bokk gi wax ko ndax nun mënunoo tàqalikoo mën nañoo nag wóote ci xalaat ànd ba seet ba ca gën a jub ñu jëfandikoo ko loolu la ñuy ñaan yàlla di ko ñaan ci réew mi di ñaan kilifa diine yi amale Cheikh mun Muntaqa ak mboolem ñi mu bokkal réew mi ci ay kilifa diine yàlla may leen jàmm yàlla gën a dolli seen wér-gu-yaram ak seen sutura ndaxit am na lu xew ci ñoom buñ ko xamee mooy xadd mu ngi bëri ak taw waaye ki ci néeg bi naan attaaya lu xew bari na ko yenu lu diis te yow mi mu ko yenul yëgoo ne yenu nga ko moo tax sax nga di ko xool yenn bët waaye boo xamoon lim la yenul da ko bàyyi xel te ñaan la ko yàlla mu yàgg ñun de noo ngi xam ne ci li nu xamee ni yenn diis na ñu nu wutu daal bi ñu fi nekkee yëguñu woon li xew waaye bi ñu fi jógee daal yëg nañ ñu yan diis na kon yàlla yàlla may jàmm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa